nga delloo wala dem liggéey nga nekk foofu de liggéey nga ñibbisiwaat waaw ñibbisiwaat waaw waaw waaw yi bëri gaa yi bëri loolu ñu fàtte hmm, waaw da war a ñibbisi de foo nga ñibbisi hmm. mais boo boo defee sa xel nga dem bisim réew nga ne ma damay dem rek hmm. te nekk eh, defoo sa xel yaa ngi ñibbisi Hmm. est loolu kii na. foo toll sa xel war naa dem ci ne da ngay ñibbisi. waaw. soo ñëwee war nga fay fekk dara. walla soo ko fi deful woon doo ko fi fekk. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. su dee am nga ay xale foofu su ñu fii war na am fu ñu dugg. voilà il faut ñu xool si loolu. ñu xool si loolu quoi bu ñu demee ñun ay sénégalais lañu. Mm-hmm. ay ay Sénégalais lañu ay africain lañu. mais ki ma wax ma ne. waaw. ki nga xam ne moo xam mu fekk fa jigéen moo xam jigéen fekk ko fa. moo xam mu jël jigéen yóbbaale ko. moom moom ko foofu voilà. ñetti façon laa jigéen fekk ko fa. wala moom mu mhm. fekk fa jigéen. walla ñu tase fa ñoom ñaar. wala mu indaale ko. wala mu takk ko. alxeyri mhm. muy soxnaam yóbbu ko. waaw dama ne est-ce que kooku jox ma joxuma la. waaw loolu. léegi participer ba participer wu ma. Uh-huh. fayal nangam fayuma nangam war na indi histoire seen diggante ci diggante ñaar yooyu jëkkër ak jabar yooyu. waaw. loolu nag mu wax su tuuti ay affaire financière du noonu la. ah damay laaj. waaw. Hmm. ko jigéen bi war na fay wala warul fay dara. waaw. waaw jigéen moom warul fay dara. warul ah loolu man yëpp jàmm. vraiment yéen ki génn léegi waxu leen ko dëgg. ki woote États-Unis. warul fay dara mais comme jigéen boppam. waaw yow yaay ko ndaw si waroo koo laaj dara ndaw si sa soxna la. waaw comme moom jigéen boppam bu bu fekkee mu bëgg naa dimbal jëkkëram. Uh-huh. waaw su ko di fay ay facture waaw amul problème. volontaire kooku affaire volontairement waaw loolu am problème. très bien. non. mais ne ko di ngay def nangam di ko teg bët. fayal bi may fay nangam. yoral nangam waaw waaw parce que dañoo fàtte dañu fàtte dañu fàtte ñun ay ay ay eh, islam la ñu quoi. fii na lu ay voilà ay jullit lañu. am na ñoo xamante noonu la ñuy fàtte parce que boo demee foofu boo dundee comme comme nasaraan la ñu dundee. waaw. ah léegi. waaw <laughs> la da ngay ne jigéen bi foo mu fay. waa nasaraan ak yu kii. yu nekk fii ci réew mi. loolu loolu laa wax loolu la dama ne ñun fàtte nañu quoi fàtte nañu. yëpp lan moo ñu lan moo ñu yóbbu foofu. kontaan nasaraan yi nekk français yi réew mi ak yi nekk ci plateau bi. nekk ci plateau bi ñu posé ñoo leen fekk seen dëkk ñoom. maa ngi ñëw Prospère papa balaa may jël keneen dafa am question bu ma la bëgg a posé. xam nga dañu ne. Ah. Euh, li war góor moom mooy yor sa sa soxna. dëkkoo dundal. yor en général war du waaw yor. léegi est-ce que. waaw bàkkaar la. waaw. jigéen. waaw dimbali borom këram. dimbali nga wax. yërmande yow père ngay laaj masala diina bàkkaar ak tiyaab. waaw père la loolu rek dama doon laaj. dëgg la hmm. ak internet yi ndax ci média ngay liggéey gis naa la ci ay page gis naa la ci média ngay kii su fekkente ne. su waxoo àdduna ne lan moo tax nga. interroger Sofia Diatta loolu. du ma tontu. yàlla tey nga de. dama xam ne parce que borom Tuuba te kon Habib man murid laa. man dama man murid laa. dama ne dama ne dama ne dama ne. di nga ci wax de ñemee rek yow li nga bëgg li nga xalaat wax ko. dama ne. Sofia yow lay laaj masala diine léegi ab oustaz. waaw mais du déglu. sëriñ nga. du déglu léegi toogal toogal tontu. du déglu non. oustaz Mouhamed Mbaye mu ngi lay seetal. non non su ma paalee oustaz Mouhamed Mbaye. oustaz Mouhamed Mbaye mu ngi lay seetaan. su ma yàlla du ma gisee borom Touba. oustaz Mouhamed Mbaye ñeme wuta dal sama kaw. déedéet léegi tontu oustaz Modou Fall ñeme wuta dal sama kaw ginnaaw yàlla nee na ak yonent bi nee na xam na ma xam naa leen. maanaam. tey tontu gannaaw loolu bul bul. dama ne ah bul tooñ loo peer kenn bàyyi jàmm. loolu dama a wax ne. tooñ lu ma wax ci ak sama gi nga bàyyi lu ma wax ci Modou Fall dëgg la. léegi toogal tontu waaw doomu asfaal jooju lu wax ci moom dëgg la. léegi toogal tontu. wallaay barke bu ne ndax loolu dafa araam léegi tontu mais ñooñu ñeme. man li nga di nga wax. maa ngi tontu lan moo tax nga posé. ngi tontu après nga tontu waaw. waaw di nga wax li tax dafa dox waaw ku dox mhm. doo ko laaj masala diine ku jàng leen koy laaj yow nag da nga ko ndax bàkkaar la bàkkaar diine ko moom du xalaat léegi bàyyi moom bàyyi ma léegi li moo tax ma interroger ko waaw damaa dox xaar nga xaraamal wala nga daganal fii yow dama la si min baxada maa ngi lay xaar yéen ñëpp xam nga ne man ku wekk seen as laa ku wekk diine laa ku wekk fépp fu doomu soxna di yeewoo kenn mësul dégg benn doomu soxna waxuma la yow doomu soxna rek waaye dëkk ba ngay yeewoo sax ma di fa tuumaal doomu aadama ci lenn man koo may indil da ngay yaakaar ne moom laa su ma duggee Tiwaawan su ma duggee Thiès waa kër El Hadj Mamadou Ndiégéen feneen foo dugg fu nekk rek da nga naan foofu laa fu ma dem fu nekk am naa fa fu ma tëdd lii ba mhm. ndax ñépp ko xam xol bu rafet laa yoon kii li mu ma laaj nga ne delluwaatal ci kàddu gi. ma ne xam nga góor mu yor moom dafa jàng man damaa dox. Mhm. waaye maa ko yeewu. maa la ko wax. du ngeen ma sa gis mukk mu duma ma. <laughs> kenn du la dóor. bàkke borom tubaab bàkke ndax mën naa àdduna. Mhm. <laughs> nit dina jàng lool. bëgg naa la duma ko ba muy naan ndox ba muy ñaan ndox. <laughs> ñëwal waxal. ay papa. dama su amut yàlla bu ma gisee loolu ma gis naa ko jàng ak ko xam-xam mu wàccee ko. Eh, eh, eh, damaa dox. Oh. eh eh dikkal eh. papa dama ne bàyyi ma. Oh, dama ne kenn du dox. muus na wuute ne question bi laa ñëw man. waaw laajal li nga laaj. ma ne ku góor mu yor jabaram. Mhm. loolu devoir la ci moom. ci l'islam waaw. ku jigéen ki mhm. su ko dimbalee wala su jëlee ci alalam def mhm. même su fekkee dañ cee waxtaanee mu d'accord mhm. jëkkëram ne ko ah maa la fi andi de liggéeyal ñuy nga jàpp ci kër gi parce que dafa metti mu koy def est-ce que loolu bàkkaar la dara nekku ci amul bàkkaar ndax doon ko waxtaanee ba déggoo tey fu waxtaan amee fu feccoo amee fu déggoo amee ci diggante waay waa ñaari waay dencante wallahi amul dara lu fa am su dee lu rafet la lu baax. loolu la tubaab naan lu baax lu rafet benn bàkkaar amul ca. dëgg la ñoom doonoo jàng. man damaa dox. léegi oustaz yow loo xalaat. loo xam yow di nga wax lu lu lu père waxul loolu la français naan consentement père. mu tontu leneen oustaz Modou Mbaye ñëw. Mouhamed Mbaye ñëw rek la ko mais li mu tontu nii. lu baax la lii mooy dëgg. li mu dama ne mu am na déggoo eh dama ne. wér na amul dama ne barke sëñ Modou Abid Mbacké mu am na nday ñemewuma loolu laa la wax kay. non mais bravo dama wax loolu la. père oui léegi seetal beneen oustaz nga wax ma ma wax la ci moom loo xam ne. dama ne lan. déet bon Iran Ndao yàlla def na. benn yoon ma sa am accrochage. ci seen show. Mhm. ko amee mooy. ah laay